الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي بوكي تعلم هنيو لندني دلين جيا تدلين دلال تي وقتان ينوي أمل في تي رزيدانس شيخ الخادم دي كوميتي انتك ديكو أمل تي نوي دلال عبد القادر به مجالس دي جيدل مكتب المجالس لبرير مجالس, المجالس.

liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a koy def ci yaatal njàngaleem sëriñ bi ak i dénkaanam ak lépp luy jariñ jullit bi rek ci occasion màggal gi nga xam ne mooy bis bi nu sëriñ bi digal nu fàttaliku ci may yooyu nga xam ne sunu borom defal na ko ko te santale ko ci yàlla ci lu ñu man ci berndeel sunu bopp berndeel it gan ñi nga xam ne ñooy gën a Seexul Xadiim jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Abdou Khadre xam naa balañoo ñoo dugg ci waxtaan wi muy technologie ak mouridisme ak nan lañ ko mën a exploiter euh, bëggoon nañoo xam lan mooy te technologie technologie de l'information et de la communication. macha allah jërëjëf ma Massamba ci laaj bi am na solo ni nga ko waxee xëy na technologie lu yaatu la loo xam ne mën nga ne. xarala yu bees yi wala xarala yi xarala yi nga xam ne ci la lépp àdduna di dox rek loolu day dugg ci biir technologie Moi, am nag ay pàcc yu wuute ci biir technologie nga tudd ci bi nga xam ne moom lañ daan woowee NTIC te léegi mu gën a ci TIC TIC mhm. ñu jublu ci technologie de l'information et de la communication mm -hmm. mooy jumtukaayu xarale yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ngir xibaar ak euh, yëgle walla yaatal xibaar ak yëgle mm-hmm. kon loolu mooy li gën a siiw ci bu ñu waxee les TIC muy ay jumtukaay yoo xam ne jumtukaay yu dëppook jamono la ba nga xam ne ak yaatoom àgg na ci foofu fi mu toll nii dañuy wax ne àdduna bi boo ko see boo ko séddale woon ci lu jege juróom ñetti milliards man nga ne juróom benn yi ak lu teg jëm hmm. juróom ñaar ñëpp dañ koy jëfandikoo loolu kon day wane ne ñi ëpp ci doomu aadama yi ñëpp rek dañuy jëfandikoo technologie de l'information et de la communication moomu moom nag li doon mooy loo xam ne day jàppandalal nit ki ci lépp loo xam ne da naroon a daj ay coono ngir yaatal ñu ñu ñu tënkal ko ko maanaam wala boog ñu taxañal ko ko ba mu doon lu yomb ci moom loo xam ne ci diir bu gàtt dana ci mën a def lu rëy rëy rëy loo xam ne yombutoon ci mag ñi ci misaal mm-hmm. buñ jëlee loolu nga wax ci wàllu tig yi mm-hmm. wala tey yi mm-hmm. danañ gis ne ak sosoom day am dafa am ba noppi am lu ko sababoon mm-hmm. masalan boo jëlee tey américain yi nga xam ne ñoo ci gën a xerañ nga xam ne lu ci bari ci ñoom la sosoo nga gis ne bañ koy sos ñoom dañ koo defoon jumtukaay maanaam moyen de communication boo xam ne dina leen dimbale ba seen guerre yi ñu nekk ñu créer loo xam ne Eh, xeeti plateforme lay doon yoo xam ne da leen di permettre ñu man di communiquer communication boo xam ne bu yomb lay doon ci seen biir ñoom armée yi ak soldats yi si mm-hmm. ngir di man di jàllale seeni stratégie de guerre ak seeni xibaar yoo xam ne seen adversaires yi duñ ko yëg mm-hmm. ci lañ xalaatee ne kon nañ sos loo xam ne kat luy daw ci lënd gi lay doon maanaam ci réseau yi mm-hmm. su ko defee ñuy fexe ba foofu ñu mën koo exploiter ci sunu biir mhm. ngir man di jàllale sunuy secret yoo xam ne mhm. ñeneen ñi duñ ko xam mhm. boo xoolee ci njaal be njaal année cinquante yi ñoom def nañ ci jéego yu ama am solo rawatina liñ naan guerre froide ci dig digal yooyu kon biñ demee nag loolu ñu réussir ko yàlla dogal ñu réussir ko ba nga xam ne ci lañ def ba démonstration daanaka xeeti ordinateur yi njëkk am doonoon loo xam ne lu luy jël espace bu bari la daanaka da nga koy def ci néeg sax nga xam ne bu ci xasee dugg leneen dootu ci xaj waaye daal teewut jëfandikoo nañ ko ba fexe ba liñ bëggoon moom ñu tàmbalee di ko am ci seen biir lu xaw a gudd la loo xam ne dañuy tënk rek bi demee ba ci fukki at ginnaaw bi xëy na maanaam bi ñu demee ba mbirum guerre yooyu yëpp jeex ñu gis ne lii kat mi ngi fi te am na njariñ ñu xalaat ne kon war nañ koo gën a améliorer fexe ba di ko jëfandikoo ci yeneen cause yoo xam ne Euh, danañu amal njëriñ ci suñu wàllu liggéey ñu gën koo gën koo yokk ci année 1960 yi ba def ci ay création yoo xam ne ginnaaw bi ci la xewe lu mel ne sos luñ liñ naan email mooy nga xam ne nit ku nekk da ngay am sa benn adresse mail boo xam ne da ngay am sa kërug bopp goog lépp loo soxla ci wàllu information wala boog ci wàllu document wala ci wàllu jàllale ay xibaar foofa foofa yow lañ koy jagleel nga mën di ci liggéey ginnaaw bi at yi ci topp tamit évolution yu bari am na ca lu mel ne euh, création bi nga xam ne mooy liñ ñu naan World Wide Web mooy ñetti W yooyu nga xam ne moo lay mën a permettre masalan nga nga nga sos liñ ñu naan site internet boo xam ne euh, tey jii képp ku taxawal mbir ngir nga am reconnaissance ba war yooyu bokk na ci yi ñu lay njëkk a laaj nga xam ne loolu tamit kon ci ngay jàllale ci misaal ñu ne tey jii kat waa Rawdu Rayaahiin boo ko doon présenté ci biti tey jii wala boo ko doon wax ab étranger li lay njëkk laaj mooy ndax am nañ site internet boo xam ne fa la ñuy amee seen information ak yu mel noonu kon benn forme xibaar la boo xam ne bu xew la donc ci évolution yooyu ñuy doxee tamit ci lañ dem ba euh, yu baree bari sosu ci masalan mën nañ cee tudd lu mel ne li ñuy tuddee les réseaux sociaux ci loolu la sosoo moom nag ci at yu mujj yi la tàmbale te it ci fruit yi maanaam jaar-jaar yi ñu jaar mm-hmm. moo ko indi ba nga xam ne moom mi ngi sosoo ci milieu universitaire boo xam ne ka ko sos tamit mm-hmm. euh, wala boog ba ca gën a fes ka ko sos lam ci jublu woon rek mooy mm-hmm. ngir nu muy fexee ba seen njàng mi ak seen xibaar yi muy man di jàll ci seen biir ñoom étudiants yi ci anam goo xam ne anam guy gën a yomb la ci lañ xalaatee yooyu yu bare bare bare bare génn ci ba tey jii boo xoolee sunu jamono jii ñu toll nii mën ngaa jël lu mel ne réseau bu ñuy wax Facebook mhm. wala réseau bu ñuy wax Twitter mhm. wala réseau bu ñuy wax Instagram mhm. ba ci bu mujj wala boog ci bokk ci mujj bi ñuy wax TikTok ak yu mel noonu yooyu yëpp nag boo xoolee dangay gis ne nombre bi ñu lay wax ñoo ci nekk ci àdduna si daanaka da mën a wax ne boo xaajee àdduna bi ñetti xaaj da ngay mën a wax ne ñaari xaaj yëpp ñu ngi ci biir biir biir réseau yooyu ba nga xam ne loolu kon léegi dafa bokk ci sunug dund ba nga xam ne mënatuñ koo moytu mënatuñ koo ñàkk jëfandikoo donc Lol nak buñ fa li am solo moy sét nuñ ko modéré nuñ ko modéré moy nuñ fexé ba man diko Nous té du indi lor mm-hmm. ndax réseau bi mu mm-hmm. ak euh, mm-hmm. dafa yu bari yo xamni koy tamit yi am yépp tamit la kon dafa ñaar yépp des ci technologie de l'information et de la communication Cheikh Massamba. macha allah xamna avant ñu dugg suñu deuxième question da danañ duggal question boo xamne mën nañ ne euh bokul won ci waxtaan mais amna ci ben bankas moy révolution technologie bi am dafa mel ne réseaux sociaux yi participer nañ ci bu baax dal waaw ki nañ ci jouer nañ ci rôle bu ama am solo ndax bu avantage yi amé nga xamne ne. li ñu naan muwaasala wala. wàllu jokalante wala walu jëflante mhm. wala walu information mhm. daf koy daf koy yombal mhm. yombal googu nag day doon ne day touché wat yenen bankasi am ci tig yi yeb da koy da koy touché lol moy tax ña manam da ngay xol dara ñaari at at ci bu gën a mag boo xam ne bokkut ak ba amoon bu njëkk nga xam ne kon étape bu nekk moo tax boo ci xawee sàggan rek wala boog boo ci xawee gëj rek lu ci bari mën na la cee raw ci wàllu lay lay jariñ nag laay wax ca lay jariñ même ba ci réseau yooyu nga wax sax day am ay ay mise à jour yoo xam ne boo ko gëjee def rek da ngay gis ne dafay impacté wu ci ci outil bi nga yor loolu ba ci sax ci wàllu wàllu jumtukaay yi masalan téléphone yi fi nii am téléphone yu mel ne eh, iPhone ak xeet yooyu yëpp rek ak Android ak yëpp fi ne am na diir boo xam ne boo ko yoree te defoo te mettre ko à jour. Mm. da nga ciy gis muy am ay jafe-jafe. donc yooyu yëpp daal eh, li waral li waral mu joué ci impact boobu mooy gaaw gi nga xam ne gaaw na ko ci wàllu jokkaloo ak ci wàllu xibaar loolu nag dafa mujj impacté waat ci yeneen domaines yi nga xam ne.

ba nga xam ne kenn mënu koo moytu kon su boobaa nag la ca murit gi mën a def mooy dellu ci lislaam yoonu murit lislaam la diine la lislaam nag dangay xool lan la la digal ci mbir mi ndax mbir mi kat day mbir moo xam ne ña ko sos biñ koy sos bàyyiwuñu xel lislaam manam ña doon créé ña doon sos la jëm ci technologie de l'information et de la communication ñoom bàyyiwuñu won xel ne amna ay julit wala amna na diina ju l'islam wala nangam dedet ñom dañ ko sos ngir doomu adam rek diko jëfëndiko légui nak mourid bi mom ab julit la bo xam bala jëf dara sëriñ bi dañoo jàngal ci jawharu nafis bi mu way laxdari yu nañu balaa ngaa def dara danga war a xam lan mooy àtteeb sharia ci loola kon murit bu ne boo jógee ba yor sa uti sa jëfandikukaay bala nga caa dugg la nga war a njëkk a def mooy xalaat man lii may def lan mooy àtteem ci lislaam boo xoolee daal di gis ne ah lislaamkat kat digal na ma nee na ma al aslu fil ashyaa'i al ibaaha nga daal di xool topp loolu ba gis ne kat ah lii ñu naan ñu naan ñu naan euh, réseau wala internet wala technologie kat biñ ko xoolee gis nañ ne am na wet gu baax am na wet gu baaxut kon xaraam gi ak dagan gi mi ngi aju ci ni nga koy jëfandikoo su boobaa kon nga ne ah kon am naa sañ-sañu jëfandikoo ko waaye nag man sama jëfandikoo man taalibe bi du bokk ak jëfandikoo koo xam ne moom dara tënku ko ki nga xam ne moom dara tënk ko moom yoonam nekkut ci li araam ak li dagan waaye man nag daf dañ maa tënk kon su boobaa dinaa xool lépp lu ci xew boo delloo ci diine dina fa am cosaan loo xam ne dina ko mën a àtte exemple nga ne man kat damaa yor machine walla ordinateur boo xam ne kat dafa soxla tel logiciel te logiciel bii kat dañ ne ngir nga am ko ña ko sos dañ koy jaay léegi kon est-ce que yow am nga sañ-sañub def liñ naan craqué ko maanaam craqué benn xeetu euh, trafic la boo xam ne rek da ngay fexe ba am ko te doo jaar fa nga war a jaar nga xool loolu ne ah lii kat mën nga ne forme form la ci jël loo moomut nga ne kon naa fa bàyyi loolu ndax kat li ma sëñ bi digal man taalibe bi warumaa jëfandikoo alali jàmbur ci anam gu lewet lewut boobu benn la ci nga xoolaat tamit yeneen atte yi ci misaal maa ngi yor sama réseau boo xam ne damay publier publication yooyu may def am na texte boo xam ne kat sëñ Massamba ko bind ma dem jël texte boobu ngir jariñoo ko bala ma koo jël ndax am naa ci ndigalam walla boog su ma ci amee ndigalam naa am boog honnêteté ak njubug bàyyi ci turam bañ xam ne lii kat liggéeyub sëñ Massamba la dama ko jàppale ci yaatalal ko ko rekk waaye du sama bir Lol, tamit ci ndax ab julit mom dara du du du du du azar ci mom wala bok du def dara ci nen lepp lu muy def rek fay am fay am atté ci diiné te honnêteté intellectuelle mayewut ak njub mayewut ngay jël yëfi fi di diko yaatal ci tour lol xétu sacc la wala resh la yoy yep ay yef la léegi nag su boba bo bo gisee yoy yep nga ay safaan la yu ci am nga góor góorlu ba man koo moytandiku nga xam ne mankat bi may dugg ci lii tamit am na ci barab yoo xam ne ginnaaw lislaam mayuma ma xool lépp kon am na foo xam ne muy ay page muy ay groupe muy ay logiciel muy ay site muy ay nangam foofa kon waruma faa dem ndax man dañ ma limité ne ma daa am lu ma war a xool am lu ma warta xool am ku ma war a waxal am ku ma warte waxal yooyu yëpp nag bu leeree nga soog a xool nag yow léegi kon nan laay exploiter uti bi maanaam jumtukaay bi ngir man cee liggéeyal lislaam ci yaatal njàngaleem sëriñ Touba loolu kon mooy war a nekk objectifu murit bi bu ciy dugg léegi nag kooku nga xam ne mooy am objectif boobu tamit wërta nekk n'importe qui maanaam nekkut ne murit yëpp ñoo am mission ne dañoo war a yaatal njàngaleem sëñ bi déedéet xëy na murit bu ne man ngaa am mission nag wane sëñ bi ci sa doxin ci sa comportement ci say mbir ba buñ la gisee xeemee ma mel na yow ndax sa jikko te buñ xoolee kat yow mii li la tax a mel nii dañuy gis ne sëñ bi la waaye nag bu desee nag vulgarisation daawa boo koy def dafa am fu ñu koy jàngee dafa am école yoo xam ne ñoom dañuy former nit ki ngir mu mën a def daawa dafa am tamit xam-xam base de base yoo xam ne mënta ñàkk ci nit ki ngir mu mën a def daawa loolu soo ko su fekkee yooyu dajewut ci yow moo indi anarchie bi xew léegi ci internet bi anarchie bi mooy lan bis bu ne nga gis nit yaatal loo xam ne wérut moomale ko sëriñ bi te dara amu ca parce que kooku moom day jëlee fee rek jëlee fee daal di tasaare jàpp ne noonu la am ci koo xam ne moom it bëggu tur tax na muy dugg ci yoo xam ne wala di la wan yoo xam ne da wan ne lii man rek maa ko am te it lam lay wan sax boo demee du noona am ci yoo xam ne it xëy na lu wër génn la ci misaal mbindum sëriñ bi am na ci loo xam ne sëñ bi ci boppam xëy na joxewutoon digal ci ñu yaatal ko nit mën na koo amee feneen foo xam ne xëy na way juróom wu ko amoon génn àdduna wala yu mel nga jekk-jekk yaatal loolo te mu doon loo xam ne lu wër te tasaaroo lay doon loolu moo tax kon ma ne mission boobu moom du ñëpp ñoo ko am hmm. waaye xëy na amaana ki koy defit la ci ëpp solo mooy nañ fexe ba maîtriser ko maanaam nañ ko peeg peeg gu wér ba noppi nag mën koo exploité ci loo xam ne luy jariñ la ndax fi mu ne fa la àdduna toll mooy moyen bi nga xam ne université yi gën a mag ci àdduna moom la ñuy jëfandikoo ngir nit ki man cee jàng ba am ay diplomam te du jóge fi mu fi mu fi mu dëkk hmm. donc kon da gis ne moyen la boo xam ne

daf lay jëlal waxtu man na la jëlal journée bi yëpp mhm. ba nga xam ne li la war li nekkoon say warteef sa diggante ak sa borom sax man naa am doo ko defee na mu waree mhm. am na ñoo xam julli gu normal mënatuñ koo def mhm. njàngum alxuraan wala njàngum xasida bu normal pare mënuñ koo def yooyu nag li waral mooy xëy na nyaka ñàkk organisé ak it am base boobu ma lay wax kon ki koy jëfandikoo war naa xool waxtu wi mu koy soxla mu dem def ca farata bu noppee nag dem wéy ci liggéeyam wala wéy ci jaamu yàllaam ndax jumtukaay la boo xam ne daf lay décontracté ba nga xam ne yow it léegi daanaka mën na mën na laa kii sëñ bu mag bi sax dañuy wax ne biñ ko njëkkee indil ab rajo tegal ko ko muy jàng alxuraan xeetu wax yu mel noonu la ci waxoon xamal ñu ne dafa bokk ci fiir yi nga xam ne iblis daf koy fiir doomu aadama bi ngir sàgganloo ko ci jàng alxuraan ndax ndax logiquement day am yoo xam ne boo ko xoolee ci logique day jaar yoon logique booba mën na laa yóbbee leneen loo xam ne farata la woon ci yow kon buñ koy jëfandikoo tamit loolu dana ci baax maanaam li ci am solo daal mooy buñ ko bonal am na ci ñoo xam ne ndax ñaari extrême yi day am day am ñoo xam ne dañ naan lu bon la kon nañ ko éliminer am ci ñoo xam ne it dañ naan lu baax la mm-hmm. nañ ko jëfandikoo ba ëppal ci ci jëfandikoo gi mm-hmm. waaye fi ñu war a nekk dëgg-dëgg comme ni nga ko waxee ñun murid di mooy ñu xam la ca baax ak tamit xam fañ yem seet tamit nuñ ko jëfandikoo ba mën a jàllale li nga xam ne mooy le message universel de Cheikh Ahmadou Bamba ndax dafa bokk ci jumtukaay yi gën a gaaw ngir universaliser maanaam euh, aalamiyatu daawat cheikh mu gën a doon lu yaa yaatu ci àdduna loo xam ne nit ñëpp danañ danañ ci mën a jariñoo ndax mooy fi nga xam ne mooy principal barab bi nga xam ne même gëstukat yi képp kuy gëstu lu njëkk ñëw sa xel li ngay njëkk a def mooy nga dugg fu mel ne Google xool ba xam koo xam ne dafa dégg baatub almuridiya wala le mouridisme war day daal di ci saase génnee uti wala bagage am moo xam téléphone la moo xam ordinateur xool le mouridisme lu muy doon su duggee nag kon war na faa fekk le maximum d'information yoo xam ne yu fidèle yu baax lay doon yuy delluwaat ci sëñ bi ci ay njàngaleem ak mbindam ak aw yoonam mm. ba nga xam ne moom kat dina xam ne kon lii kat wooteeb lislaam bu sell la boo xam ne dana ko intéressé ba mu découvrir mbirum sëñ bi mm. xëy na découvrir gi nekkut ne convaincre nit ki wala forcer ko ngir mu doonu murit wala déedéet waaye li am solo mooy àdduna moo toll foo xam ne léegi ñëpp dañuy indi seeni mbër teg idéologie yi ñëpp dañ koy indi teg te it delluwaat ci sa cosaan mooy identité de l'être fi mu toll nii dafa bokk ci yi nga xam ne yi mënta ñàkk ci àdduna bi la kon ñun nag ginnaaw am nañ lu gan gànjaru loo xam ne sëriñ bi neewoon na law alima annaasu ma huna la baadaru ila talabihi walakin lamma jahiluhu wala lamma jahiluhu talabu xayrahu mooy kon njariñ loolu nekk ci moom walla li ko yàlla jox li nekk ci moom te nit ñi dëddu ko ngir ñàkk xam ñun ñu fi seet nu ñu fexee ba mu am ba mu accessible ci ñëpp accessibilité bi nag lii nga tudd benn la ci waaye tamit soppi ko ci ay làkk yoo xam ne mooy làkk universel yi ñu xam ci àdduna ñu fexe ba message bu sëñ bi di ci jàll ba nga xam ne kiy gëstu moom su duggee ci loolu fi ñu toll nii lii saafara àdduna bi ci njàngaleem sëriñ bi la mën a jugee jugeenu gaaw waaye nag mi ngi dépendre ci sunu farlu ñun kon buñ farloo ci fexe bam ñëpp mën cee am accès ba noppi nag mën koo jaarale ci jumtukaay yooyu jàpp naa ne loolu moom fa la liggéey ba nekk fi toll nii loolu nag ngir mu am tamit ni nga ko waxee murit bu ne mi ngi ciy góorgóorlu li fi am tamit am na solo ndax boo xoolee ci wàllu yooyu ma tudd évolution yooyu may wax mhm. fu mu ci doon fu ci nekk yoonu murit avancé na ci bu baax mhm. maanaam muy euh, site internet yi muy page yi muy réseau yi et cetera bari na surtout ci côté podcast bi ngeen di def ak exactement yooyu yëpp bari na mhm. bari na mais mais xam nga li ci yéeme nag mooy yooyu ay initiative individuelle la individuelle exactement fi yoonu murit toll nag war naa weesu ay initiative individuelle kese waaye dafa war a am lu officiel hmm. li officiel mooy loo xam ne day am reconnaissance ci ñi yor décision yi wala boog kilifa yi hmm. kilifteef gu mag geeg yi ko seq yépp ba nga xam ne tey jii da ngay mën a wax benn site officiel yoonu murit boo xam ne bu ca nit ki luggeekat lépp lu mu bëgg a xam ci sëñ Tuubaa jumaa ji yoonu murit xilaafa nangam hmm. nangam lépp daf fay nekk nga xam ne foofu mooy fi nga xam ne day am reconnaissance bo xamne 100 lay nek ba nga xamne tay ji kat ci misal lay xew ci aduna rek bis bu ne nga dégg fausse information yi moy li ñu naan fake fake news xeet yu mel non tay ji bu ñala ah sëñ bi kat joxe na ndigal tel tel tel mais day day yomb nga xol sa sa sa téléphone rek dugg ba xam xol est-ce que werna wala wérut mu wax la ci lu leer sa xel dal nga continuer xam ne lii nii la deme wala ni la deme waye fi ne ñàkk a nosu googu ci wàllu information daf ñuy yóbbee yoo xam ne léeg-léeg jafe-jafe lay nekk donte initiative yu kii yi fi am baax na lool waaye it euh, sunu sunu sunu capacité ak sunuy moyen egg na foo xam ne war nañoo am lu gën a yaatu lu gën a officiel loo xam ne nit ñëpp danañ ko mën a jëriñoo sëñ ma hmm, daa mel ñoo ngi junj naan juróomi minute moo des ci waxtu wi. Hmm. kon euh, question bu mujj mooy lan lañ ci mën a moytoo ci teg integ bi. moytu gi mooy li ma waxoon ci njëlbeen gi rek. buñ xamee ne am na njariñ kon nañ seet njariñ ya ñu utiliser ko à fond am ci nag jubluwaayu vulgariser walla yaatal li nga xam ne moom la fi sëriñ bi indi mooy am mbindam di am njàngaleem di tamit doxaliinu yoon wi rawatina bis bii nga xam ne moom la ñuy waaj tey muy bisub màggal gi war naa am dimension bu universelle bu ëpp solo boo xam ne ni nga xamee ne noonu la ñuy tuddee yeneen bis yi gën a mag ci àdduna te màggal gi fi mu toll tollu wuñ fa loolu tamit ñu def ci communication bu rëy rëy rëy boo xam ne ñoom ñëpp danañ mën a xam ne kat am na bis boo xam ne kat li ko sabab mooy koo xam ne dafa jugoon ngir xettali doomu aadama yi jànkoonteeg nangam ak i ak nangam loolu tamit jàpp naa ne lu ci am solo la li ci mata moytu ba tey mooy loolu ma la waxoon rek mooy Eh, di ci di ci di ci yaatal di ci yaatal yoo xam ne xëy na yellut walla boog sax jëfandikoo guñ koy jëfandikoo dem ba di yàq yoo xam ne ndax ndax ni ma ko waxee léegi day moyen bu efficace te boo xoolee léeg-léeg day indi jafe-jafe bu baax a baax a baax ci diggante xalaat yu wuute kon war nañoo am ñun tamit xajoo goo xam ne bu ma gisee sëñ Massamba indi benn opinion masalan ci politique heure bii daaw ñi ngi woon ci ay jafe-jafe yu metti ci wàllu opinion politique maanaam kii wax nangam ji xëy na man bokkuma ak moom gisin fi mu toll nii yooyu dafa indi ak noonoo gu baree baree bari indi tamit pas-pas yu yàq yu baree baree baree bari ci sunu biir te loolu yépp nag li ko yombaloon mooy mooy technologie bi walla mooy réseau yi nga xam ne moo fi moo fi am kon yooyu tamit buñ ko dee jëfandikoo mooy jëfandikoo gi ca euh, la yell waaye tamit ñuy xajonte xam ne kii kat ginnaaw yëf yi daf laa permettre dafa laa may nga man di exprimer sa xalaat boo waxee bu waxee xalaatam nga nangul ko xalaatam donte d'accord ci sax waaye nga xajoo ko boo ba te it ñu xam ne relation du relation réelle waaye da ngay bàyyi xel nit ki surtout sa mbokkum taalibe xëy na lii rek boolewu leen kon boo ko fekkee mu wax xalaatam bul ñëw rek attaqué ko attaque yoo xam ne ëllëg bu ngeen gisantee mën nga cee am kersa yooyu yëpp yu ñu mat a yu mat a moytu la moytu tamit ni nga xam ne noonu la ñuy la ñuy exposé sunu kilifa yi masalan boo jegee ak kilifa bo léeg-léeg nga nga fekk ko mu nekk situation yoo xam ne du situation yu ñu ko war a photo ba di ko ba di ko génnee dafay am vie privée dunduk privé am koo xam ne day bari ñoo xam ne nag dañuy photo kilifa sàngam ci melokaan woo xam ne xëy na du melokaan wu officiel nga publier ko génne ko ndax yow da ngay jàpp ne li ngay def fii rek lay am te fekk ne day wër àdduna bi yépp te lu ci xas ba dugg tamit mënatoo ko supprimer wu maanaam yow yaay def acte buy wane ne effacé ngay fi waaye yëf ya moom ma nga ci ñoom seeni serveur yoo xam ne heure bu leen neex mën nañ koo génne kon yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la ak boo xasee yor profil boo xam ne it luy wane ne yow mii kat kuy yaatal mbirum sëriñ bi nga ngay bàyyi xel barab yi ngay dugg muy page yi muy groupe yi ak yu ne mel yëpp yu ci mat a yu ci mat a moytu la mm. ñu yem rek daal ci njariñ yi te di ko jëfandikoo na mu gën a matee ci yaatal mbirum sëriñ bi la nga xam ne moo ci di ay lor tamit ñu jéem koo xam te di ko ko Cheikh Boucar ak dinañ ci jeexantal waxtaan kon sa kàddu gu mujj ak nga xamaale ñu leen mooy académie Madias xam naa day dugg ci hmm. bunt bi ci tënk rek jërëjëf Mbacke waaw kay su ko defee kon li ñuy tàggatoo rek hmm. ni nga ko laajee bu fekkee li ñuy wax hmm. plateforme wala académie wala Madias euh, liggéey la boo xam ne li ko tax a jóg mooy rek yaatal njàngalem sëriñ bi ak mbindum sëriñ bi jaare ko ci xarale yu bees yooyu mooy tig yi nga doon wax léegi ki ko sos nag mooy sëriñ Abdou Aziz Mbacke bi nga xam ne mooy sunu kilifa di doomi Cheikh Mouhamadul Bachir moom sañ Baara ginnaaw bi it yu baree baree bari sosu na ci ci wàllu numérique bi ci wàllu créer ay site ci wàllu traduire ay téere def ay exposition yoo xam ne def nañ ko bitim réew def nañ ko koy ci biir réew mi mu jëm ci dunduk sëriñ bi ak tamit téere yoo xam ne it ci loolu lay jëm ba tey sos sos nañ ci tamit euh, barab bo xamne day day day day day yaatal euh, li nga xamne moy téré l'islam yi bi nga doon wax légui nga xamne man maa nekk ca bobba ak it euh, lepp lo xamne rek dal luy participer la ci développement wala yaatal li nga xamne mom la fi serigne bu mag bi indi ci walu séminaire walu conférence ak xéet yu mel non yépp kon dal plateforme la bo xamne rek lolu moy li ko yaatal njangalem serigne bi waaye nag li ci ëpp ñu koy jaaree ci jumtukaayu xarale yu bees yi ñuy daaneele suñuy kàddu rek fi ko tàmbale woon ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi téwér ñaanal ko it njabootu sëriñ bi yëpp ak taalibe yëpp di ñaan yàlla ñu egg ci bis bi ak jàmm te it ñu bàyyi xel it ne li ko taxawoon a jóg tamit du ay fo du ay caaxaan sëriñ bi lim ñu ci digal mooy sant yàlla sant yàlla gi nag doonte tudd na ca bernde nga xam ne kon daf ñoo jox ndigal li ba noppi wax ñu niñ koy defee waaye it noonu it la fi la ci bàyyiloo xel nit ñi ñu ciy jàng alxuraan di ci jàng xasida di ci fàttalente di ci def lépp lu baax kon bis la boo xam ne bisub sëriñ bi la bisub sant la ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax ba nga xam ne képp kuy ñëw ci dëkk bi it war ma yi nga xam ne moom lañ wax ci dëkk bi ak ñi fi dëkk it ñu di ko ñu di ci bàyyante xel su ko defee loolu dina tax ñu mën koo defee ni ko sëriñ bi bëggee te it kenn ku nekk mën a am li nga xam ne moom la ci sëriñ bi dige ci ay yiw ak ngëneel ak i xéewal wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Abdou Khadr mbokk yi àgg nañ ci jeexantalu waxtaan wi tey ñu doon waxtaane la technologie et le mouridisme comment l'exploiter التكنولوجيا والمريدية كيف يمكن أن نستفيد منها ñoo leen sant di leen gërëm ci teewlu bi kon ba beneen yoon jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullah bila